كيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدو للدمع والسكن لم دائما ابدا على حبيبك خير يا اله وجدي فشقدت مكة وسبب علينا بخور الخير وال والكرم الكرم علم شيعتنا يا ملجأ ذائنا وسجينا يا di ñaan ñëpp ñi fi ñëwoon pour ziar si yal na yàlla nangu ñaani faj aajo yi si barki jëmm ji tëdd fii. Tiwaawan bi kontaan naa si trop saa yu ma fi ñëwee ba ñaan fi sama soxla su ma demee moom lépp lu ma bëgg dama koy am nañ fonk diine ji ndax boo ñëwee ba fii nii Tiwaawan ñaan si boo ñibbee waratoo continuer di def li nga doon def mees yeeg lépp loo xamante ne yonent bi bëgg ko rek dañ koo war a bàyyi. man damaa bëgg sëñ Babacar si ci sama xol bi rek sëñ Babacar si dama koo bëgg. di ñaan ci yàlla yal nañ ci yàlla rey dundal yan waa dund ci dee ci màggat ci ci barke Mouhamed. bismillaahi rahmaani rahiim asalaamualeykum waa senegal maa ngi leen di ñaanal yàlla yal na yàlla boole na ci taaliba sëñ seex yi ba dund ñu dundu ci dee ci xippi ànd ak sëñ Mouhamed sallallahu alayhi sallam man ren ji damaa demoon penku sax waaye damaa kontaan ba tey moom te waawan boo mën woon a bañ ñëw sax dinaa ñëw. waaw man su sañoon sama morom jigéen ñi. ñu jéem a changé vu ni temps am na lu bari lu fiy jot di xew ci dëkk bi ñu jéem a changé soppi jukko yi jéem am neneen nu ñu mel daal man daal su ma loolu am su mënoon nekk daal moom dina ma gënal bu baax. maa ngi jóg ba Kaolack ñëw gàmmu si bi li ma yëg mooy xol bu sedd bi jullit ñëpp yëg ci Seydi El Hadji Malick teete gu mu teete ci yónent bi xamal ñu ko ba xamuñu ko dul moom ñu ngi sant di ci kontaan lool nag. ci ànd ak xol bu set yal na yàlla def ci réew mi jàmm di def ci àdduna bi yëpp jàmm ci barke yonent bi salaam suñu xalifa sanaal yàlla na ko fi yàlla yàggal te wéral comme eggale naal yi magam yi naaloon ci barke yonent bi salaam alhamdulilahi rabbil alamin ñoo ngi sant yàlla julli ci bi sallallahu alayhi wa ngi waa Tiwaawan di sant aussi Seydi El Hadji mi nga xam ne moom woote ba ñëpp di ñëw ñoo ngi koy sant ñoo ngi koy gërëm te di ñaanal ñëpp jullit yi yëpp yal na yàlla raxas xol yi yal na yàlla jubale Sénégal yal yal na yàlla def fi jàmm yal na yàlla defal jàmm waa DSTV yi وأن محمدا المختار في القدم yàlla na ko teew ay at atat ci barabu maam Alaaji maam Abdou mi nga xamee ni si liggéey na lislaam boo xam ne si ñëpp ci teg seen bët yàlla na ko teew ay at at yàlla yéen ñi yéen ñi nga xam ne yéen a ñëw diggoo yàlla yàlla yàgg a bu baax a a baax gën a yokk seen liggéey gën koo taaral bu baax a baax barke na ba son yàlla na yàlla réew mii ni nekk ak élection ni jub yàlla ci yàlla def jàmm defa nu ci xéewal mu sedd réew mi sedd guy kontaan nanu bépp jullit fu mu mën di gàmmoo jërek yàlla na ko yàlla joosi yoonu jàmm mu dem ak jàmm ñibbi si jàmm te lépp lum jàmm lum ñaan yàlla na ko yàlla nangu jaaj yoon tub yàlla salaam yàlla may ñu ko teew at yu bëree bëree bëri bi di fekk suñu sëriñ si yàlla yàgg leen may leen wér may leen kattan si daaj yonent bi salaahu salaam. sant yàlla bu baax rek di julli ci sang-sang yi Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa euh, yëkk yëg yëg bu foor suñu bi ñu duggee tiim suñu wasila bi El Hadj Abdou Aziz Sy Dabakh euh, di ñaan yàlla mu yokk leeram te taas ci barkeem ci barke borom guddi gi. ñu ngi ñaan jàmm ci réew mi yàlla def jàmm ci réew mi. def xéewal def sutura su kawe suñu njort ci darajay Seydina Mohamed borom bés bi. gàmm gi ala dafa ala daw mi neex na lool yal nañu yàlla may fekkee at yu bëree bëree bëree yu ànd ak wér yàlla tas ci barke ñu fi tëdd ci barke borom guddi gi Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. sant yàlla bu baax di sant Alaaji Malick ñu jagleel guddi gi di sant yàlla lii moom ren moom ñëpp a kontaanati. محمدا صفي سرين بابك في ولا آل وصحبي أصحابي نبوت العلماء علماء قبوري أسراره gàmmu gi yow ngi sant yàlla bu baax rek na nag waaye ñu ngi sant yàlla sëñ bi jaral nañ ko wax dëgg yàlla ah, ñaan soxla yi rek yàlla faj aajo yeeg soxla yi rek أبدا أنا محمد تنقبة مدينة ولا آلي وصحبي أصحابي لغود sant yàlla ci organisation bi ndax nit ñi moom jàppale nañu wax dëgg yàlla loo leen wax rek ñoom lañu moom la ñuy def amul benn problème vraiment naaj bi tàng na rang bi métti na waaye ñun góorgóorlu wax maa ngi sant yàlla yonent ba ñoo naa fi daaw daaw doo naa ren yàlla na ma yàlla fekke déwén ak jàmm ak salaam nga xam bi neex na bëri dafa dëgg yàlla ko fekke déwén bëri ñun ñëpp parce que suñu xol yëpp a sedd kontaan nañu yàlla nañ yàlla ma ngi koy wakaat yu bëree bëri ku si ñëw da ngay kontaan سلوكك إلى طريقة الرسل والخيرات والعلم borom xam-xam bu wér a wér fa tabaarakallaahu lépp lu fi yàlla lopp lu fi nit ñaan yàlla dana ko fay yéen ñi nga xam ne yéen ñuy eh, eh, wax ñu leen di wax loolu lii ñu ngi yëg mi ngi mel ni ñoo ngi taxaw ci rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam maamam alaaji Malick ak baayam Seydi Aboubacar ak moom fi rasulillahi tegoon tànk lañu teg seen tànk manqué wuñ ci dara yal nañu leen yàlla fayal fayal seen njaboot fay leen yéen ñi nga xam ne yéen ñuy kii. maa ko daan béyal tool mooy sama sëriñ léegi si doom ji mooy sama sëriñ man Malick Seck laa tudd. man maa ngi tudd Ibrahima Khalil njaay jóge ba Ndulo ci njaareem am xol bu sedd lool ci bisu yonent bi alayhi salaatu wa kontaan lool ci seet si di Hadji Malick Sy di ñaan yàlla yàlla nañu ko yàlla fayal lii yàlla nañ ko muurloo yàlla bu mu doon coonom neen am nañ yàqin bu wér a wér a ne Seydi Hadji Malick wanuñu benn contradiction lépp lum ñu wan ci sunna la ko teg bëggul lu bañ nañ ko ba oto yi dañ ne leen lépp loo xam ne du yoon bu leen ko nangu ñun lépp loo xam ne nii du yoon rek bëgguñu ko lépp loo xam ne tegewut ci charia ak sunna bëgguñu ko bon nag loolu Seex Seydi lañ koy sante di ñaan yàlla xalif général des Tidianes Seex sëñ Mbay Si Mansour yàlla na yàlla yàggal ko fi bu baax a baax a baax a baax di gëm ni yàlla rek moom am nag di siyaar ñu baax na siyaar jullit yëpp di siyaar kilifa diine yi tëdd dégg nga ngi leen di siyaar dégg nga leen ñaanal yàlla na yàlla yokk seen leer yàlla tax seen barke ñun jaam yi nga xamante ñoo fi nekk di taalibe yàlla na yàlla jàppale xol bu sedd daal laay yëg mbégte mbégte moo xamante ni daal mënu maa wax sax wax dëgg yàlla maa ngi sant yàlla di julli si yonante bi di ñaanal maam El Hadj Malick si rabiyallahu taala kenn mënu koo yàlla rek moo ko mën a fay moog njabootam yàlla leen yàlla dolli leer taaju seen barke. ñoo ngi ñaanal sëriñ Mbaye si Mansoor mi fi nekk fa maamam tegoon tànkaam yàlla na ko yàlla suturaal ba yen bu mu yenu mu àggale ko fu foo xamante nii rek mënu maa wax sax di kontaan mbégte maa ngi sant yàlla di julli si yonante bi. ñoo ngi defar rang yi et tout nit ñi aussi ñoo ngi respecté seen rang yi parce que ñoom xam nañ li leen yëkkati xam nañ li leen yëkkati bu baax te xam nañ ni ki ñuy fekk fii du koo xamante ni nii dañu war a ñëw si moom ak désordre donc lépp lu leen wax fekk na ñoom ñu préparé woon ko ba pare avant ñu fi yeew macha allah. place Abdou Aziz Al Amin bii nga xam ne mooy sama sëriñ moom may werd 17 ans la am bi ma koy may waaye ku yiw moo tëdd fi tey ku baax ku yëg nit koo xam ne kii tey bu la recevoir bu dee waxtaan ak yow yaa koy yeewi waaye du la yeewi mukk moo tax jaa moo tax ñu ngi koy jooy ba nëga ni ci lépp nag xam-xam bi yar bi boo boo bokkoon nag moom tey di lekk dalay tegal wallaayil asim man xam naa ci dara tey daal teewoon daal kontaan nañu suñu xol sedd na ñu ngi siyaar ñëpp di siyaar Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu mi nga xam ne moo fi taxawal lii di ko ñaanal yàlla yàlla yokk leeram barab bii ma taxaw tey muy mosale Sëriñ Abdoul Aziz Al Amin am na lu ma yëg lu rëy ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa dañu ñëwoon pour ñaanal ko yàlla yàlla yéegu ko ci ba saq yonent bi yàlla bàyyi fi leeram njabootam ak mboolem ay taalibeem ak mboolem jullit bu ko soppoon yàlla dogal ñuy xew ci leeram ba ba koy fekki li ma yëg rëy na lool ndax kii tëdd fii daanuñ ñoo fekk ku fii ci kër gi yàlla dogal na man ci ñi ko xamoon lool ci la bokk am na benn bis maa moom ñoo bokk añ tabaarakallaahu bala nga koo xam nag dang koo jege boo ko xamul fulla ja ak fayda ja ak ni ko yàlla binde woon da koy ragal waaye boo ko jigee rek ñime ko ndax ku yàlla mayoon la mu xam nit xeebul kenn yéemul kenn itam noo toll ci bar martaba ak daraja sëriñ Abdou mënoo ko déranger noo toll ci ndawe ak nekk xale ab du mënoo tax mu xeeb la kon yalla na yàlla yokk leeram ci barke yonent bi ليلى ليلى العروبة لا در في رجب ثم المنادي فتنكر حبا بعدما شهد به عليك هدوء الدمع والسفر وسلم دائما أبدا